kàddu yi nga xamante ne day ngaañ ab diine te loolee mën a bokk ci na saxal jàmm ci réew mi kaabu ci mujj imam Sall suñu naataango yi gis ni kon lii lee mën naa nekk luy jaxase ab réew te mu mel ni ñi ko fi defoon ci jamono jàngalu ñu ko dara li am ba am kàdduk imam Sall ñaaw na ba foo ko nat weesu na ko moo tax nag jàngu ji moom jamono ji lu ñu ko yàkkul dañu ko fàtte ci biir le quotidien le quotidien kàddu yooyee nga xamante ne imam Sall yëkkati na ko tax nag ba jàngu ji di sàkku mu daal di jéggalu ci kanamu askan wi yëpp laata loolu Sud Quotidien di xam ne ni CNRA ci boppam àdduna ci mbir mi ba am ay daan yi mu teg ci ndoddu Walf TV gannaaw kàdduk Imam Sall Imam Ndaw moom bu tëddee mën naa nelaw ba yendoo réew mi Quotidien di kat ci procès muy até en appel buñ ko waroon a jagleel ni ki démb ci wàllub terrorisme di ci fësal kàddu yi nga xamante ne awakaawam bi di maître Moussa Sarr yëkkati na ko mu gis ni dossier imam bi ci boppam dara moo ca nekkatul tribune yéen kaay ndax yëf yi jeexagul ndax ëttu atekaay bi di cour d'appel dafa dakkal yëf yi ci weerub bi ñu dégmal tey jii benn fan ci weeru mars SAEMS ak CUSEMS ci lañu war a xaatim seen déggoo bu yees ak nguurub Sénégal la Soleil yéenekaay moo ko xëy tey fësal ci xëtam bu njëkk déggoo googee li ko waral source a di xam na ni kon base bi ci boppam ñeel ñaari syndicat yooye ñoom ñëpp nangu nañu ci dakkal seen xeex wi li am ba am ci protocole boobee nga xamante ne kon war nañ koo xaatim Sud Quotidien daf ñuy xamal ni kon xaajaloo la ñu nemmeeku ci biir syndicat yu yëngatu ci wàllu njàng mi ak njàngale mi G7 G20 ak G5 li ñu wane gannaaw waxtaan yu ñu sekk ak nguur gi dafa mel ni xaajaloo mooy tàmbale xeeñ ci biir syndicat jàngalekat yi xaajaloo bi amoon diggante maître Abdoulaye Wade ak Macky Sall juboo boo moytul léegi mu am ci ndax ba ñu tuddee stade bu mag bi nekk ca Diamniadio maître Wade dafa mel ni diggante gi tàmbale na rataxati am na sax ay kilifa yu yu nangu ni lëkkale waat libéraux yi yëpp daanaka lu mën a nekk la waaye Walf Quotidien tey am na jàngat mu ci def mu gis risque muy ndëgg sërëx bi nga xamante ne PDS ci lay waaj a dugg Aliou Sall ak Ahmad Aydara waaj a déggoo ci nuus mën a def ba samp seeni conseil foofee ca ville bu Géejawaay gannaaw ay mu mel ni saafara tàmbale naa jippa ci pëccëxoo ak ñàkk déggoo gi ne mekkoon keroog ba ñuy installé kii di Ahmed Aydara source a dikkaat ci lan moo ko waral li waral boob ak léegi sampaguñu premier ministre bu yees waaye tamit beneen gouvernement la tribune yéene kaay di ci indi tontu mu gis ni kon yokku le témoin yéene kay wax ci njeexintal yi nga xamante ne kon daan yi CEDEAO ak UEMOA teg ci ndoddu Mali am na ko rawatina ci Sénégal muy xam ne ni kon port bu ndakaaru ci boppam nga xamante ne fii la lépp doon jaar ngir dugg ca Mali boo moytul nag taxawaay boobu dina ko ñàkk Abdoulaye Dieye bu ànd sigil Thiès ak basiru Seye bu APR Thiès li ñu doon wër muy teg loxo ay milliards yi nga xamante ne doomu Xadafi moo ko dencoon loole bu yóbboo ñu xam nañ ko libération di denc na ko taxoon ba ñaari kilifa APR Thiès yooyu sóoboon ci ay xeetu pexe ni ay njublang ngir jëm ci teg loxo loole mujjuta antu Edouard Mendy moom li mu manœuvre ca final League Cup ca Angleterre moom la àdduna bi yëpp di waxtaane performance yu mucc ayib la def ci kanamu ñooñu Sadio Mané ba tax tey ji li nu ko remplacer ci tiro biti mu jaaxal ñu bëri laaj bi jaaxal ñëngatu ci wàllu tàggat yaram mooy diggante Sadio Mané Edouard Mendy ak Mohamed Salah ana kan moo war a jël Ballon d'Or ci atum ren ji yéene kaay